مدى الخبير جيب الكبير ما لا يبر من اللغة ديكو زيارة ديكو جاجفل ديكو مصر وجونا

de la commune de Thiès Est su ma ko waxee defe naa ni fii kenn du ko weddi te Serigne Khadim mii defe naa ni ginnaaw yàlla ak yonante bi nag ba may xëccoo di ñëw ànd kàngam yu bari ñëw fi daje kàngam yu bari boobu ku ne bëgg te muy commune bi ëpp ci Thiès ndax cent vingt cinq mille maa ñëw fekk ko mu toog fekk ñu bari ñëw dem waaye man de ba ma ñëwee defe naa ni jël naa sama wàll ndax dama ñëw wax ko la ma soxla mu déyeeg man génn gunge ma ni ma fal naa la maire ba pare defe naa ni ña ma àndal ak astu jënd nga nee di deuxième adjoint au maire te ñu ngi ci sunu deuxième mandat kon sëñ bi jërëjëf ñun xam nañ la bu baax a baax a baax yàlla sa taxawaay yàgg yàlla boo juum benn yoon yàlla buñ la juum loo sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax ku ñëw fii gis defe naa ni Boussoura wax rek doyoon na sëkk mën na noonu ñaan rek ñu dem Boussoura gàmm na gàmm bi ñuy avant ngeen di ñëw xasaaytu Sëñ Tuubaa yi jàng nañ avant ngeen di ñëw tagg nañu boroom guddi gi muy Muhammad sallallahu alayhi kon defe naa loolu doyoon na sëkk bi ñëwee rek def na synthèse bi sëñ bi ñaan rek moo ci desal waaye nag ku ñëw fii xam ni Euh, lii fi nekk du hasard dañoo woy sànq ñu ni Serigne Saliou gërëm na la Serigne Bara gërëm na la xalif général bu fi nekk rek gërëm na la ba ci sëriñ Serigne Sidi Mokhtar te yàlla fi yàgg gërëm na la kon keneen ku la gë Serigne Massamba sëñ Moustapha Massamba gërëm la kon defe naa ni keneen ku gërëmul tam dootu la sax ñi la gërëm doy na sëkk parce que loolu ko doon kon it li Boussara wax rek zéro faute dangaa clean li américain li américain yi di wax you are you are very clean loolu mooy am sëñ bi jërëjëf ñun loolu suñu mbégte la ñun ñi taxaw fii di wax loolu day suñu mbégte képp ku bokk ci kër sëñ ma sàmba xam nga ni lii mbégte la ma dikke ñaar mii toog xam na ci dara waxuma woy yi donc moom mii mën na témoin ni Serigne Saliou Mbacke gërëm na sëñ Xaadim wax nga ko fii ba tàyyi kon ñun képp ku bokk ci sëñ ma sàmba wala nga di murid rek mbégte la ci commune yi nekk ci Thiès yépp ci département Thiès amul benn tànt boo fi dem mu mel nii tey sañ naa ko wax sañ naa ko wax trois communes yi ngi ci cees amul benn boo fi dem commune bu mel nii kon nag defe naa ni fii nag ku ku xam fii xam ni daraa ngi fi nit ñaa ngi daw di toxu si kenn jóge gu fi toxu fa te ba nga ko sancee ba nëgëni te 93 ba nëgë ngeen ngay def gàmmu bi kon sëñ bi jërëjëf ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ku gis sa université féminine bi nga xamni ni bi ñu yëkëté wax dëgg yàlla discipline bi fi nekk bari na yu bari yoo xamante ni yu mel ni tey boo fa demal désordre nga fay gën a gis que discipline bi kon donc da nga éduquer ñi nga yor professeur yi nga yore xam nañu li nga leen bàyyi leen kon sëñ bi ñu ngi sant bu baax di la gërëm du ma guddal wax ci maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fii daal ko fi ñëw yàlla na nga delloo jàmm comme ni ko suñu sala waxe ñu nga fi ñëwal ñu ngi lay sant di la gërëm ba déwén bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf